asalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah yu jara leeral la lan mooy pureté lan mooy légèreté lan mooy exaltation lan mooy chute libre xam nga pureté pureté niñ ko waxee woon laab élément la ci propreté élément la ci yeneen nag yeneen élément la ci waaye pureté ci boppam en tant que tel état la état boo ci xasee ba àgg nag xuus a mën a nekk waaye dellu ginnaaw xajutu fi dellu ginnaaw xajutu fi waaye nag dellu ginnaaw xajatu fi waaye gaañu xaj na fi dellu ginnaaw xajatu fi waaye gaañu xaj na fi te moo la Serigne Cheikh waxoon bu la dara yomb ba nga jàpp jafe na waaye bu la dara jafe ba nga jàpp ni yomb na yàlla kenn du dox ci ay mbiram ak xel bu dal ndax fam lay seetloo fam lay natte ak fa ngay tarxiisee da nga dul xam fan la looloo tax pureté bi lu mu am am solo il faut que am lu lu ko contrer ci la légèreté di ñëw légèreté ñaari sens la mën a am bu xasee bu dugg ci cadre légèreté dangereuse nag sàgganee sa bopp lay tudd te mooy lépp lu lay gaañ yaa nga ca bis bu nekk lépp lu lay lor yaa nga ca bis bu nekk lépp luy tardeel nit wala wala loo xam ne dafay dafay ñàkk njëriñ nit dafay dugg ci cadre légèreté boobu mais dafa am légèreté boo xam ne comme ni ma ko waxee léegi mooy tolloole yëf yi te mooy dafa am euh, suñu benn sëtu maam bu ñu ko mës a ci filmu Avengers yi dañuy laaj martowu Thor lan moo tax mu mën li mu mën ma ne koy pourtant ak oyof ma ne ko li tax mooy boo seetloo dañuy wax ci film bi ni ku xolam ku ku ku ku ku xolam tuurul ku xolam parewul bu ko jàppee du ko yëkkati ma ne ko parce que marto bi diisaay xolu boroom lay lay lay imité bu nit ki diisalee boppam rek yëkkati boppam fu mu àggul rek moom mu mu imité même chose bi moo tax ku rëy ku bew boo ko téyee doo ko yëkkati lu dul koo xam nag tey jii oyofal na xolom oyofal jëmmam ba du teg nit lu mu waxta lu lu lu mu ko waxta teg du wax ak nit lu mu waxta wax ak yow ba mujj gi boo xoolee ba xool sax ji ko sondeel la ñu xaw a am ndax dañuy mujj topp jàppale nit ñi ak defal nit ñi ba mujj di bëgg a gaañ seen bopp xol boobu moo ko mën a yëkkati ndax xol boobu oyof li tax nag buñ ko sànnee ku mu dal gaañ la dafa fekk ni buy egsi sa kaw sa xol lay liir bu ko liiree nag gis mu diis diisaay boobu lay egsee sa kaw bu ko liiroon na gis mu oyof day ñëw rek mel ni xottu gerte loolu mooy légèreté sainteté nag kon léegi mooy lan bu ñu nee pureté fii ne légèreté fële sainteté ah détail la sainteté détail la ndax lu saint objectivement, ça n'existe pas. ndax c'est une question de perception ndax gis nga tey li kenn di mën a xool ni li de lu ama am solo la keneen mën na ko xool ne ah c'est pas sorcier moo tax sainteté bi du lu du lu exister réellement ornement la waaye lenn rek am nangul yàlla lim soxla ci yow kese <laughs> ah ba tontu na Voilà. <laughs>